jaajëfal nañu leen bu baax a baax saa laa mu toog voilà yay eh, eh, bu noppi. ñuy gën sëñ Baara kat moom moo commencé. waaw toog eh, lu xew nii. Baye Assane anamu moom. man ma convoqué fi ñaar kii kii lu parce que Assane nekk dem na ndeyaa dem ne ma toog parce que du adduna bi léegi lépp teraanga la damaa. léegi loolu liggéey par force. Assane eh. Baye Assane kii la. kay de dañ koo yónni. ah mi ngi nii. waaye yow mayal kii. dama yow. fuuy dem te war a liggéey liggéey baa ngi nii maa ngi toog lijjanti leen. ba pare il faut il faut liggéeyal victime di net continuer man nekk ma fi di nekk jugal ay détails la yow joxal li Assane demal saa ma wàcc su ma wàccee ku absenté te du ma fi toog wàccal demal Assane kenn absenté wul wàccal acca wàccal <laughs> bàyyi perturbé waa sukaa moom liggéeyu tey ñëw di ruube man kay loolu la ma jaaxal nga bàyyi ko ci sagoom rek eh, wala bu fekkee mën naa assuré ak jeudi bi kay ngay ñëw jeudi. turu turu turu biisu ngoone bi laa lay jox léegi. ayca <laughs> mi ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax Assane ñu nuyu la rapidement balaa ñuy jox ah, ñu lay fay bu baax ajaratu mais yow nan nga war a mën a liggéeyee ñëw nekk ci kër gi di doxantu. pour lan la loolu. kër gi loolu lañ ma sant. démb nekk ma fi nga nekk ci plateau bi di ruube. su kaa laa bëggoon a dóor. la sant moom nga bëggoon dóor. waaw ah. boo ko dóoree xam ne Boubacar euh, góor tigi la. waaw ah, ayca nuyoo nga ba pare. waaw nuyoo na ba pare. waaw du net. voilà. <laughs> looloo jar laaj kañ la bëggee ni liggéey ah, kañ la bëggee ni liggéey ñu saa <laughs> mm-hmm. tee kaa yokkal ay heure comme daa bëgg liggéey. war na problème da ah, koy rek problème da koy indi. <laughs> ba ngay dem. ayca. Adja waaw. tey dañoo indi. victime damaa xamul ndax Ahmed Aïdara mooy victime waaye ministre yi moom ay di ay. victime sa ñàdd gi nga nekkee waxal rek. ay hmm? ñàdd gi te wax. ñàkk mooy. ñàdd gi ñàdd te wax. non ñàdd de damay expliqué. ah waaw bu ñun ñëpp. non ñàdd de man yi ngay def yëpp xam naa ko. ñàdd. dégg nga ma eh waay Samba waaw waxal rek garaaw. Ahmed Aïdara. Mm-hmm. dafa def revue de presse. Mm. revue de presse Omar Bun Khattab Gueye mm. xam na lan mooy revue de presse. da ngay ñëw xëy dajale journal yi ba mu bari nga jël ci ay journal revue daal di teg ci jamono yi mu koy def nag dafa am ñu doon jiiñ ci dëkk bi nii ñii dañoo jël xaalisu senegal mm-hmm. ñu xaatim ko ci aw xët Ahmed Aidara revue de presse ko ñooñu nag moom la ñuy wërale ci réseaux sociaux yi naan sàccaa ngi nii na Diomaye wax ñun nag dañuy jottali ni Ahmed Aidara jottali woon ñu dem déglu ji ñii ñu wax ni ay sàcc lañu ndax li ñu leen wax ni moom la ñu jël salaire mënu leen koo may après ñu dellu si en tout cas am na ay kilifa bare bare yoo xam ne daal taxal nañ leen wala ñu tudd leen ci ay musiba scandale financier bu dee ñenn ña nag buur ci boppam moo leen jàpp loxo ca poos waaw ñeneen ñi moom ay rajo kànkang la ay tuuma waa léegi alalu askan woowee nga xam ne dañ ne ko nañu koo caxataxatee sàtt ko wala ay njuuj njaaj ci mbirum fraude alal ju leewul ci xaalisu askan wi lée kañ lay leer Cheikh Omar Anne cinq cent millions Aly Ngouille Ndiaye 76 millions Cheikh Kanté 17 milliards Amadou Ba 40 milliards Aliou Sall 6 000 milliards kookoy seet en tout cas am na ay kilifa yu bëree bëri yoo xam ne daal taxal nañ leen wala ñu tudd leen ci ay musiba scandale financier bu dee ñenn ña nag buur ci boppam moo leen jàpp loxo ca poos waaw ñeneen ñi moom ay rajo kankang la ay tuuma waa léegi alalu askan woowee nga xam ne dañ ne ko nañu koo caxataxatee sàcc ko wala ay njuut ñaati mbirum fraude alal ju leewul ci xaalisu askan wi lée kañ lay leer Cheikh Oumar Anne 500 millions milliards Mame Mbaye Niang 29 milliards Mamour Diallo 94 milliards Siré Dia 108 milliards Racine Sy 76 millions Cheikh Kanté 17 Ba 40 milliards Aliou Sall 6 000 <laughs> bàyyil noonu mu sedd voilà Omar bun Khattab lii Ahmed doon def da koy def muy revue de presse man ko lool macha allah yal yàlla barke làmmiñ léegi saa laay faral dégg mu ni bu ni bu la indilee genre yu mel nii bul dal ci kaw journaliste bi bu dee la mu wax ci journal yi lañ ko bindee léegi kon ñu bàyyi fi mbirum kon revue de presse léegi ñëw ci journal yi ko bind dama jàpp ni war na ñoom ay xabaar bi ñuy bind lu mel nii léegi nag comme ñi dañ leen tudd ci alal ju bari ji boo yi di leen wëndeelaat ndax da nga jàpp ne lu ñu war a saytu la wala loola lu paase ay rumeur la yu jàlloon xam na tey ji mun na bañ doon rumeur hmm. mais mun na doon rapport génnee rapport ne diw tudd nañ ko ci lii am na diw ñu tudd ko ci lii ak moo def lii baat dafa wuute. waaw maanaam mun na la tudd dara ci wàllu gestion parce que ni rapport yi di demee mu dañuy jël sa tur daf ko ci rapport mais rapport bi dal la koy jox. Hmm. nga dëggal wala nga weddi wala nga joxe ay explication ci li lay jiñ dëgg la wala du dëgg. Hmm. bu dee da nga dugal xaalis nga wax fii nga ko dugal ak fii lo rapport yi loolu lay jariñ léegi nag bu dee ab journal da ko bind moom yoonu Ahmed Aïdara moom nekku ci. Hmm. ah ah peut-être nag style bi mu koy waxee. xam nga booy revue waroo koo tudd bu ko journal bi bindee. non non ko war a tudd. ah waaw loolu man la kay yoonu ah, Ahmed Aidara nekkul ci. ni moom moo bu doon Ahmed moo génn na hmm. diw lii diw lii diw lii defu ci toor daal mais li journal bind la bind léegi nag da ko wax da koy waxee benn style boo xam ne hmm. day intéressé ñu bari peut-être loolu moo doon def force Ahmed Aidara peut-être amoon na style boo xam ne ak voix boo xam ne bu ne bërët rek hmm. ak nu mu koy waxee ak euh, nu mu koy commenté da ngay sentir ni da ngay dem ba jàpp ni moom mooy wax léegi nag booy nag indiwaat gi ñu ko indiwaat. tey ji fàttali baax na. fàttali ndax fàtte xaju fi. Hmm. parce yii yëpp dafa nekkoon débat parce que ñun fii Sénégal li ci bari ci li ñuy dal. mooy danoo amnésique ñun dañuy fàtte. day mel ne dara xewul quoi parce que des fois nga gis tey ji ci nguuru Macky Sall gi koo xam ne tey jii bu dawoon ñaari at mun na dellu siwaat ci réew mel ne ku mosul def dara wala ku mosul tudd ci dara léegi nag fàttali boobu tey jii boo gisee booy wëndeel li mooy jomaay moo bëgg ko fàttali. waaw ndax waxoon na ko. ndax ba muy wax waxul rapport daaw. dafa wax rapport daaw. 2019 ba 2023 2010 ba 2009 léegi nag la xewoon 2019 xew xew xew 2020 2021 2022 ba tey jii 2023 2024 tey jii booy jëliwaat ko indi dëggal ni la muy wax am na ñu tuddoon ci ay rapport léegi li ñu war a question te war ko métti lu mooy ñii li leen tudd yëpp ak ni mu rëyee. waaw ah, bu dul Aliou Sall ah. Mhm. parce que Aliou Sall demoon nañ ban def appel à témoin procureur woote ba affaire yi mujj fi mujj mais ñeneen ñëpp. Mhm. parce que Mamour Diallo mii tey ñu wax ci 94 milliards dañ doon wax naan Sonko li mu waxoon du dëgg ak. du mais am na rapport OFNAC bu génn confirmé Sonko dëggal Sonko. waaw ah mais teewul Macky Sall da cee teg jël Mamour Diallo defal ko promotion. Mhm. maanaam au lieu ñu sanctionné la mais dañ lay jox sax ndombal tànk gën la yokk doole. Euh, tey jii ñu fàttaliwaat li wan ni tey jii li gars di wax du wax ju bees mais wax la ju yàgg joo xam ne tey ji fàttali ko yàqul dara parce que nee nan wax waxaat du yàq wax la répétition elle est pédagogique léegi nag ñoo def defuñu. léegi nag justice moom moo koy càmbar la fekk ñu tur la ci rapport nekkul ni yow la. d'accord rapport yi dañuy gëstu. daa épinglé rek waaw épinglé léegi nag. justice hmm. léegi nag li joma ñoom jomaay bëgg mooy nañ publier rapport yi. lépp lu ci yoon war a def. Hmm. na ko def pour ñu xool ni yow li lay tudd yow la wala du yow. Hmm. wala gën jumte nga ci am parce que ab du rapport bu la tudd rek mooy dan la war a yóbbu justice tëj la. mais am na ci yoo xam ne da nga war a jubbanti. d'accord war a jubbanti. macha allah man li ma ci naqarlu mooy yëpp ñu tudd ko ci ay nit. dafa bari alal ji. mat na presque ñaari junni milliards. nguuru Macky Sall nekk na ba jóge fi lijjantiwu ko loolu échec la ci. politiku Macky Sall ak sunu justice su réew aussi. macha allah jërëjëf bu xajee rek euh, ñu daal di dellusiwaat Assane. Mm-hmm. Euh, lii de la ñu andi tey gisee ko ci internet ba depuis ba président Diomaye waxee mbirum Petno ba yàgg barki dem mu ni 2019 ni ko Omar waxee ba 2023 dafa bëgg rapport yi ñu publier ko ba léegi. gaañaa ngi ñu ngi tippoo defe yow mii sax ci nga tippoo woon euh, kii Antoine. yaa tippoo woon Antoine. Antoine defut defut rapport. Hmm? Antoine defut de. lu tax nga tippoo ko kon. daal xanaa tooñ ko rek waaye defut lu gisuma rapport am de. <laughs> kon baax na mais yaa ngi daal yaa ko tippoo. léegi rapport am. léegi boo koy boole kon loo koy boole. rapport damaa kan mbiri xaalis la de wala. waaw léegi Antoine boo koy boole kon loo koy boole. mbiri acte yi. acte acte. luy acte. jëf hmm, jëf waaw. Ah, lim jëf. maanaam café Touba ak yooyu. waaw moo tax man yaa tipp woon Antoine. waaw mais rapport yi mi rapport yi la. d'accord aywa kon leer léegi. ñii nga xam ni xale yi ñu ngi leen di commencé waat di wërale revue de presse ba mel ni lu yees peq ginnaaw biñ ne dafa am ñu ñu war a saytu. waaw xale yi dañoo xamul rek moo tax ñu koy def journal ba ko bindoon nit daa xamut rek moo tax mu bind ko ku ko doon revue de presse it daa xamutoon rek moo tax mu ko doon ak ñoom. Hmm. mais lii moom waaw yenul maanaa ndax bu yenoon maanaa dañ ne xaalis Sénégal bi yëpp ñoo ko yor kon Sénégal du egsi fii mu egsi oh. tey loolu munta am tey amul benn preuve boo xam ne génn nañ ko teg si table ji Sénégal yi gis ñi ñoo sàcc lii oh. tan nag dañoo mën a jàpp ne rek waxi opposant la woon opposant ñoo fi nekkoon naan diw sàcc na lii diw sàcc na lii diw sàcc na lii mais kenn mës sa génne la woon. opposant la woon kay. mais lim doon revue ci journal la ko gis. waaw waaye opposant la rek te doon politique te fee la faroon opposant yi la faroon. te dafay bëgg na jëlee ñi moo tax kon man yooyu yëpp dama koy teg ay tuuma rek yoo xamante ni yëkkati nañ ko teg ko ay nit ba ba may gis lu leer nañ loo xamante ni leer na ma ne lii kat kii yoo ko def ñu woolu ko ni ko lii yaa def mu confirmer ne moo ko def daal di si deltu wala mu bañ wala nangam mais daal toog rek jékki-jékki bind diw sàcc na nangam diw sàcc na nangam gars yi di ko bind di ko windeel suba sax mën nañ see dugal keneen ni diw sàcc na nangam di ko windeel internet bi moom kenn moom nit mën naa toog sax xalaat bind publier gars yi gis ne gars eh, a nangam kon yooyu man mënu ma see sukk sukkandiku en tant que professionnel boo xamante ni damay toog di wax nit ñi di ma bàyyi xel. <laughs> yow waa léegi ci suba ci suba ci <laughs> asat moo ñii may yàlla digg digg digg waa asat xanaa gisuma bi ngay tudd Mimi Touré ak Mary Teuw Niane xanaa ni ko professionnel xalaat. looloo ba jaaxal suba fii la ñu daan ni Mary Teuw Niane Mimi Touré nañ leen nga xëy ñëw daan wax ci lii te ci suba nga tudd ñaar tey suba la woon. Ah, ah ci ngoon gi <laughs> ah, ci ngoon ci waaw gi maanaam sa xel mi évolué na. voilà. ma gis-gis bee amoon si ngoon ma am gis-gis bi <laughs> dañ bàyyi jàmbur yi. Assane Assane mënu fee manqué. aywa alaaji kii Assane. yow koo naan alaaji démb noonu la su kaa def ni euh, Sanjogo al Adja. Adja waaw ah, pourquoi nga naan ma alaaji lan laa lay nduru ci góor. Ah. xanaa kii voilà waxati allah ji. dëgg la macha allah na ma yére bu rafet yére bi ma jëndal tabaarkàlla macha allah na ma yére bu rafet suba ci ci jomet ko sol ba ànd dogal borom bi. ayda amul de laaj ko ku ko jëndal bu ma ko jiiñ. ne hmm. allo. Assane de fekkee woon na ko ma ne rek. Hmm? di nga xam doo ma sosal de. <laughs> Adja temps baa ngi jeex est ce que doo jox alaaji bu bu desee ma jël. Hmm. déedéet kii rek après dem na kii naa la kii rek nga indi sa xalaat ci daal gars yi mel ni mën nañoo génne ji ay bagages yu yu tilim. Mhm. yu poussière ñu fëgg gaat ba mu set. Mhm. dugalaat ko ci internet bi. jarul ñu koy génne pour man xam nga lu tax. président de la république rapport bu fi ne rek ñoom xam nañ ko. Ah. ba nekkee non jaru ko duñu fàtte parce que loo xamante ni la ñoom ñoo ko promettre sénégalais yi. Hmm. jarul fàttali ñoom xam nga nit kuy soog a toog jarul fàttali ndax fàttewul lu ci nekk ku ci mel ni Sonko 94 euh, milliards yi néew yi muy jiiñ kii Mamour Diallo hmm. moom moo ko yëkkati woon. donc am na yeneen ak yeneen yoo xam ne bu dee rapport yi ñu ngi fi loolu jaru ko jaru yàkkamti mhm. waaw nañ leen bàyyi ñu def seen temps ñoom lépp lu nu war a xool dinañ ko xool lu nu war a saytu dinañ ko saytu ku lekk lu réew mi nga goqi opération goqi bu fekkee ni lekkoo nag nga dem tëddi nelaw loolu la rek jarul mm. fàttali de ñi nu de ah, nee non non dañuy soog a dikk rek macha allah mm. alaaji mm. lii de laa indi tey lu loo xam ne lu yàgg la fëgg nañ ko ba mu set nag dugalaat ko ci internet mel ni lu bees la di tudd ay nit yoo xam ne jàpp nañu daal li ñu jël ci milliards Assane wax na ko ay junni junni milliards daanaka di bëgg a tolloog budget wu Sénégal waaw. waaw xam nga professionnel moom. Hmm. Euh, li mu wax. élargir eh, eh, eh, ah ah wax rek te bàyyi ma man xam na sama kaw la jëm si. <laughs> sama kaw la jëm si. daloo ci kaw ay nit. moom moom dafa jëm si sama kaw. yow daloo ci kaw ay nit. waa léegi déglu. yow la jëm waa déglu. waa léegi moom dafa ñëw pour dal sama kaw. non non ci suba da takkal ay nit pour daal da bàyyi. bi ngay taxal ay nit suba waxul tey. waaw léegi may ko mu wax léegi bàyyi ko moom laa léegi léegi naan naa Assane xaaral mu wax. mais sama kaw la ko kii. waaw waaw may ko. waaw waxal nga ni professionnel xam nga professionnel moom. Euh, euh, lii nga xamante ni bi moom lañ wax. ginnaaw buñ taqalee. Mm. ndax da gis nga ci diggante bi lu weddi taqali. déedéet. léegi yow lu tax nga bëgg a xam ne. ginnaaw ay tuuma ñëw na te gisoo lu ko weddi lu tax léegi nga bëgg a dàq tuuma yi. day xaar ba gis professionnel kañ yow. ndeet moom dafa gis. Mhm. lii. waaw léegi day xaar ba gis weddi mais gisagoo kenn koo xamante ni weddi na. waaw xam Aliou Sall buñ ko seetalee it du mën a guma set. day mel ni la nga waxoon rek ca ne. Hmm. Jomaay euh, Ousmane bu gañee génn Ousmane Sonko boo waa ah, dañ ñaan xaritama ko kii. président Macky Sall bañ tuumaalee Aliou Sall dane sama rakk waaw te buñ tëb tëbaatee ñu ne Aliou Sall dem na woo nañ ko set na dañuy jàpp ni setut parce que euh, mënuñu koo ra boobaa doo wëlati yoon non du question doo wëlati yoon mais gis ah. nañ tamit yoon dañ wax ne dañuy defaraat yoon kon kañ yoon am na loo xamante ni bii euh, kii na comme li nga ni buñ ko setaloon aussi dañuy jàpp ni setu Ah, mais bu xa raccourci am na justice moom am na chaque jour pexe. pour li jënti waat ay waaw ah, non non mais am na chaque jour am na ay raccourci ay yoo xamante ne bi ubbeeku na. <laughs> lii euh, Aliou Sall Oustaz Aliou Sall di wax ne luwaay tubaab. waaw tubaab ay pexe ngi du mën nañoo wut ba tey ay kii léegi nag li nga xamante ne bi mooy li am. Mhm. waaw ndaw ñi dañuy wane waat rek ne réew mi fii la toll ba tey quoi parce que euh, lii ñuy fàttali. baax na parce que président wax na ni li ko dalee 2019 ba nëgë ni nañ jeexal waat lépp ne ko bëcc ci kii bi ci penc mi askan wi yëpp daal di xam xam nga boo seetee fan yii passé yëpp da ngay gis nit ñi ku ci nekk di wane naan set naa set naa waaw kuy tëb naan set naa set naa nag léegi nag nañ wane rapport yi rek bu ko defee bu ñu ko publier lépp bu boobaa dinañ xam ku taqa ku taqut mhm. bu ñu xamee ni Assane Mesere mii kat tuumaaloon nañ ko ne takk na mhm. ñu gis ni ba rapport yi génnee taxut. Mhm. Sénégalais yi gisandoo ko. waaw parce que épingle moom tekkiwul ni def nga. waaw dañ laa soupçonné rek. waaw donc loolu la. Mhm. su fekkente ni bi nag Assane Mesere mii xool nañ ni nag dëgg-dëgg def na. ñu def ko nañ def ñi def rek. du laaj ko si tuuti ngay wax. ah laaj ko si mu joxe laaj tuuti déedéet ban laaj moo moo kay da nga koy joxe. day joxe xaaj téye xaaj. yow bu ñu jëloon sa alal ba nga dox ba yem ci. loolu kañ la. ah waxuñu ko. déedéet waxuñu loolu de dañ ne fi mu toll tey bu yoolee maanaam boo yoolee jee. waaw yow dinañ la jox. bu boobaa dinañ la kii léegi yow fi mu toll nii bu fekkee ne. am nga yow ci sa jëm bopp demoo leeral yëf yi ah, buñ la kii lépp la ñuy faqat ci de. boo demee delloo ah, lépp nga parce que bu gars yi defee pen kañ ba def enquête ba jàpp la. lépp nga jox. bu dee nag dem nga nag ci njekk joxe lépp ci njekk ñu ñamal la tuut ne la. li nga nii maanaam boo joxe woon 10 milliards yoo sàcc boobaa danañ ne la sàcc baaxul waaye nag waaye nag mosal lii. waaw xool oh, ma xeer. 1 million sax bari na. non dama ni ko non dama ni boo boo joxee 10 milliards yoo sàcc. 10 milliards mën na jox 2 millions ne la dama. 2 millions noo koy dee. 2 millions dama liggéey si digg bi demal commerce. si digg bi baa ñu bàyyi ko. bari si digg bi baa ñu bàyyi ko. si digg ba si digg bi. cinq milliards ngay téye joxe cinq. mën nga koo jox ñaar fukki junni yow dix milliards nga joxe cinq. waaw cinq ngay joxe téye cinq. baa nga dem tëdd ko mu jeex ko <laughs> góorgóorlu. kon nga dem tëdd ko. noo koy tëddee da nga ñoo xam ne da leen di gën a ah? tëdd. da ngay dem tëdd ko doo ko tëdd parce que mm-hmm. at yéen la war a tëj. doo jox ñu def la avis hmm? rek. at yéen la a cinq ans dong la de. cinq ans. waaw ah, mu jeexal. kon doo leen tëj ci prison bu neex de waaw. <laughs> ay comme que prison yi kañ jéemu ñoo defar prison yi. Hmm. coono gi nekk ci prison yi nen askan wi yëpp. Ah, gis nga bi booy génnee li ñu expliqué. Ah. ci prison yi paquet bi ñu. paquet bi moo tax man la xam naa ne étape par étape la rek dinañ ko defar. donc il faut que ñu hmm. jéem a xool bu baax. nu ñuy defar ak euh, tamit prison yooyu. jàpp naa ne bu ñu xalaatoon ni bés xam prison moom ku ne mën na faa dugg. Ah waaw jombul kenn boo yow mii lii mën a. def naa ni war nañ ko defar. jombul kenn war nañ defaraat yëf yi ba ñu gën nit ñi gën a mën a nekk. d'accord c'est bon. Adja gërëm nañ la sant la jox la ab dig ba altine ci kàttanu borom la mhm. incha allah yéen it ma gërëm leen sant leen bu baax a baax di jaajafal ñi jàpp ci émission bi ba mu yemb ci njiitalu El Hadj Modou du Abdou Top Ablaye Diallo Serigne fàll ñoom Kanj ak képp koo xamante ni yaa ngi biir solution ni ki noonu biir euh, Walfajri ñu ngi leen di remercier jox leen rendez-vous lundi incha allah ci kàttanu yàlla di souhaiter nag Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam. dañu am fayda dañu am fayda